Yes la tapis bu rouge. Ah. tey rek sa famille di muñ. jaapi la maa foog ni nga ma. rouge rouge rouge rouge mel ni fa sa koñ. da ngay taxaw te doo ko tey. jaapi la ni nga maa ngi fi. maa ngi waa dangote ni nga door ma démb door ma tey. jaapi ni nga du ko tey. wàcc wàcc wàcc soog a yee. jaapi xoola MC fi ñëwoon nee nañ ma la ñuy jéem a song dee waaye ku song dee. jaapi <laughs> maa foog. bi yeeg bi yeeg ma ñëwaat dibir dibir yeeg woo jàpp MC ma bu bëggoon lakk leen ñibbi leen damay teg teg motherfucker baate leen ñibbi yee ñibbi yee motherfucker nigga eh NBA NBA tak tak da ngay ñëw faj faj ma defaat la jaa pii motherfucker nigga sa gel la fu sa far la damay teg motherfucker nigga booy café bi de far na wop wop motherfucker garab laay jaay mel ni pharmacie motherfucker tak aksi ga re benn tak aksi jaa pii te sa tak tak fi wop di je tak mag gi jaa pii la mag gi wàcce